bokkum sëñ Tuubaa cosaan ak wàllu fa boroxaan moom bi la lay niru sayaan way mbàkke balla xëj bokkum sëñ Tuubaa cosaan ak wàllu fa boroxaan moom bi la lay niru sayaan way mbàkke balla xëj naa maam astawaalo de maam jaar mooy mbokku mam de mi jur Ahmadu Daam mbàkkee ngusoo te yàgg na ñoo bokk ndey te bokk baay ci wàllu maam a wàllu baay Seex Madu jël mbokkam nga jaay jënde ngërëm la wàcc na mam du bi sange wàcc na ahmadu ndumbe na sawoo ki penku yóbbu naar yu ko toppan aljana jaaraama say ko ahmadu yaa sopp bamba ahmado nam soppe yoneen ahmado cameen gu nga yàgg na mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp ci ziyaar bi di jiite ci nuyoo bi ak ziyaar bi jëfee Cheikh Oumar di sëriñ sa jëmm daal di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu ba mu natal lépp naa bu ma am ci yow bi ak ci diine yi defal ko it jëmmal sëriñ ni nga ko xamee bu ñu tolloon ci waxtu xaaj bi nga xam ne moo jëm ci conférence bi nga xam ne sëñ Cheikh Mouhamadou Moussa Baye ak moo ne dañu ko taxawal ñu fas yéene koo boole lu am solo loolu conférence bi nag day nag fàttali lay nekk rek ci tomb boo xam ne jàpp nañ ne bu yitteel jamono la te lu ñu war a waxtaane nag ngir gën a fettali ndaw ñi ñuy gën a góorgóorlu ci li sëñ bi digle woon muy sàkkalu lew kon mawdon bi wala thème bi day jëm ci loolu mooy njariñul sàkkalu lew ci njàngalem Sëriñ Tuuba loolu nag ki ñu bëgg mu présenté ko ci ab tënk lay def muy Sëriñ Mbàkke Mouhamad Lo doon kenn ci mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal nii muy exposition de conférence su ko defee ngir tënk rek bañ a guddal ñoo ngi ñaan ci mbooloo lépp ñu may ñu ak teewlu rek insha allah su ko defee ci diir bu gàtt rek ñu jox Serigne Mbacke mu fas yéene ñooy def développé euh, thème boobu ñuy ñaan suñu borom defal ñu ak ak topp bu waxee ba noppi insha allah dinañu sàkku kenn koo xam ne dina mën a def daal muy commentaire bi par rapport ak sujet boobu nga xam ne moom la doon waxtaane naka noonu it danañ jox kàddu ñi nga xam ne ñooy gan yu tedd ñu jógee kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe suñ noppee it kenn ci kër baax di ñaan mu dugg nit jàmm di ngeen jàmm di barke sëñ bu baax kon sëriñ Mbacke bismillah hasbi allah inna waliya allah wa ma tuqi illa billahi la hawla wala quwwata mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam te muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa di leen ziyaar bu baax ci guddi gii nga xam ni ñu ngi koy waajal ashirina muharram te muy fàttaliku bis bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa ci ndigal loo xamante ni sëriñ bi ci boppam moo ko joxe woon ginnaaw bi itam ni ngeen ko xamee Cheikh Moustapha digaloon murit yépp ñu di ko taxawoo nii euh, nuyoo boobu ak ziyaar bi itam dañ ciy jiital Cheikhul Khalifa Cheikh Sidil Muxtaar ak euh, sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xamante ni moom la sama borom subhaanahu wa dogal mu nekk ci bopp kër Cheikh Moustapha bi di ñaan sunu borom subhanahu wa mu yàgg leen fi lool te wëral leen jubal seeni jublu ak seeni yéene nuyoo boo ziar bi itam ñu ngi koy jëmale ci képp koo xamante ni ak foo man di nekk ci suuf sunu boroom si yaa ngi jéem a taxawu ngir kàddug sunu boroom gi jëm ca kaw xanaa nag su boobaa damay jagleel nag cant ak ziyaar sunu sang su teg si ñi nga xam ne ñooy doonay Cheikh Moustapha waa Kër Sëñ Tubaa gi te taxawal guddi gi ngir fàttalente ñaare tomb yu mel nii su ma koy tàmbali damay fàttali ne du ab conférence ab nafarandoo la nafarandoo su boobaa ci lay gën a yomba nangoo dégloo bi ci desit mooy ab jukkat lay doon mënuñoo dajale mboolem lu aju ci tomb bi sottee ndoo ko benn yoon jamono ji laajatu ko alluwa ji matewu ko dënn bi yaatawu ko làmmiñ wi setewu ko waaye rafet na lool ñu war a waxtaane tomb bi nga xamante ni sëriñ Abdul Qadir tudd na ko te muy ahamiyatu kasbil xalaal fi taalimi Cheikh al maanaam wàccuwaay bi nga xam ne ci la fàggu lu lew am ci yoonu sëriñ Touba yi wala ci njàngaleem sëriñ Touba wi loolu itam sunu sang si dafa mel ne li tax ñu tànn ko dañoo bëgg a wane dëgg-dëgg Sëriñ tubaa ak am njàngaleem mu wér ndax waxuñu am solo gi liggéey am solo ndax liggéey bari na waaye am solo gi fàggu lu leew amee solo lañ ci jublu te pourtant liggéey lañ ci jublu waaye Sëriñ tubaa ban liggéey la reconnaître wala lan boog la nangu ne mooy liggéey mooy fàggu lu leew loolu moo tax ñu jëfandikoo baatub fàggulu leew noonu kon dañuy leen sant bu baax a baax tey rafetlu tomb boobu ak ni ñu ko tànnee ak ni ñu ko tudde tomb bii nag tomb bu am solo la ngir anam yu baree bari benn bi sëñ tubaab mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku xam nañ fi mu tegoon jëfi aada ak na mu bëggoon ñu jàppe ko muy jëfi aada ji sëñ Tuubaa moo waxoon ne alxidmatu hiya al ibadatu wa innama al aadatu muinatun ala al ibadat xidma bi ñoom sëñ Moustapha Diop nag dañ ci wax wax ju xorom waaye du ma dugg ci détail yooyu ndax loolu du sama du sama spécialité maanaam sama àlluwa màccut jëm foofu waaye ñoom sëñ Moustapha a bañ banaa ko jëf la ñuy wax waaye du ñu wax liggéey waaye dana lay xidma daal mooy jaamu yàlla gi te moo tax yàlla indi ñu fi waaye aada ji nag moo lay dimbali ba nga mën a taxawee jaamu yàlla moo lay dimbali ba nga mën a taxee jaamu yàlla loolu moo tax sëñ Tuubaa ci boppam aada ji di liggéey moom daawul jëfandikoo lu ci bare bare baatub al amal al amal gi nga xam ne mooy firi liggéey ñaari sëñ Tuubaa suy jëfandikoo baat te jublu ci liggéey bi muy ñaq ngir am wërsëg baatub alkasb lay jëfandikoo baatub alkasb bi nag ci wolof mooy fàggu dana ci ñëw ci kanam waaye sëñ bi daa wut yam ci alkasb daa alkasbul xalaal maanaam fàggu maanaam fàggu wiin wu lew man boobu day màndargaal fàggu yi nooy fàggoo mooy danga koy def ci lu lew wala boog mu ne kasbul xalaal dangay ngay fàggu lu lew kon ngir sëñ Tuubaa mi indi njàngale mi te moom la ñuy fàttaliku tax na waxtaane di am solo ñaareel bi Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo digle woon màggal gi ndax xam nañu ne projet structurel yi mu jëfandikoo yi mu yi mu réalisé maanaam liggéey yu mag ak sémb yu mag yi nga xamante ni sottal na ko la ko ko may mooy nangoo daan doole loolu moo ko ko may suñ ci doon wax jëlee raay bi njaareem ba Touba doon na ci doy sëkk misaal wala boog ñu ci di wax jumaay Touba ji nga xamante ni yoonu murit taxawu na ko te la leen ko may du lenn lu may seen ñaqu bopp kon loolu dafay firndeel ne ngir ki tax ñu di màgg ki ñu digal màggal gi muy sëñ Modou Moustapha ci la nekkoon ci la taxawale jumaa ji ba ni mu ñëwee sëñ Fallou mu baax ma radwanullahi taala alayhi eggale te dégg ngeen ñu ne ba muy def ba muy inauguré marché Ocass wala ba mu koy rëdd ab dokk la yoroon daa def daal ne Ocass waay Ocass mooy ab dokk wala aw yat wu ñuy sukkandikoo ñu ne sëñ Fall dana Ocass waay mënees na cee dimbandikoo kon loolu itam day firil loolu moo waxoon sànq ñetteel bi li tax moo am solo mooy yoonu murit ci boppam ñu bare bare jàpp nañ ne liy màndargaal yoonu murit dëgg-dëgg te koy màndargaal wala yeneen kuréel yi nga xam ne mel na ne xaw nañoo nuru ay naanuwaay bokk na ci liy màndargaal yoonu murid nag mooy liggéey mooy fàggulu leew xëy na loolu itam beneen tomb la boo xam ne du suñu waxtaanu tey ak njuumte yi ci am ñeenteel bi li tax tomb bi di am solo mooy contexte bi ñuy dund mooy jamono ji ñuy dund ñun jamono ji li ñuy wax matérialisme muy am gu yomb gi tax na nit ki daanaka dana jóg di fàggu te du ca xool lew naag lewut lii Roger Garaudy di wax nee na jamono ji yàlla mooy mooy madda matière mooy xaalis kon jamono ju toll noonu nag ba tey waxtaanewaat ci tomb bu mel nii am na solo ñaare dama koy wax ne sëñ Touba soo gisee ci taxmis euh, toxbatul awwaa wax na fa luy cristalliser luy luy wone luy jëmmal fi jamono ji toll ci ñaari bëri bay yooyu mu naan taba itibaaul hawa wa qillatu lwarai walxirsu walbuxlu wal l amwali bichatai bi ci des mu ne axdu uxaawilu jamaa almaali daara sai wa uqsimu dahra dannan anna lii wa maai kada wa lii kada wa nga xam ne foofu kon fi jamono ji toll itam dana tax ñu war a waxtaane tom bi nu amee solo bi te foofu laay mujje di wane ne warees na ko waxtaane mooy ki nga xamante ni moom lañ tuddee euh, exposition bi tuddee ko guddi gi muy sëriñ Manumbe Xabaan ñépp xam nañu ne misaal la woon maanaam royukaay la woon ci liggéey ak ci ñaq ak itam di ko teg ci liggéey boo xamante ni liggéey bu bu sàmmontee ak tënk yi sharia yi teg soo gisee sëriñ Bachiru ci minanul baaqil qadim mi ngi naan ci qaama cheikh aljalil ahmadu ndumbe bi tafaqudi almuridin wa ixtaafihim ala muwasalati sayri fi tariqi cheikh almarsumi lahum bani mu jeexe muy wone ci comme taxawaay bi mu ci amoon ci liggéey sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana itam wax na ko ci na unnadi kon mbokk yi juróom yooyu day tax ma jàpp ne sunu sang si tànn tomb bi ak ni ñu ko tuddee am nañ tawfiq lool ci tomb bu ñu tànn jamono ji laaj na ko yoon wi laaj na ko sëñ Tuubaa laaj na ko Cheikh Moustapha mi digle euh, guddi gi laaj na ko sëñ Mandumbe Xabaan mi ko tuddee itam laaj na ko suñu ñëwee nag ci lan mooy al kasbul xalaal wala kasbul xalaal muy gu lu lew mbaa fàgguyin wu lew lu yomb a dégg la fàggu mooy lan mooy jéem a am def sa kem kattan ci am dara lépp luy nuroog coono nga xam ne day jóge ci yow te day am lu ñuy wax contrepartie dafa am luñ la cay joxe loolu mooy fàggu su dee arab yi alkas bu lañ koy tuddee dégg ngeen yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis ne atyabu ma yakulu rajulu min kasbihi min kasbihi la wax ci fàggoom kon baatu fàggu la su dee lew nag ku jàng sharia xam ne alxalaalu lu lew léeg-léeg mbir da koy xamee ci xam safaanam alxalaalu luy safaanam mooy alxaraamu mu jeex kon dangay ngay jéem a am dara waaye la ngay jéem a am day lew yoon wa nga koy jaar day lew ci gàttal loolu mooy fàggu lu lew loolu nag suñu ko dee wax dañuy xam ne li ci ëpp solo mooy baatub lew bi suñu waxee liggéey lan moo tax ñu bàyyi fi baatub liggéey jëfandikoo fàggu lu lew loolu moo ko waral ndax loolu mooy njàngaleem Serigne Touba jëmmi fàggulu leew loolu am na ay tegtal ci alquran ak sunna jàng ngeen ko ci surat saba sunu boroom ba muy nettali ci daawuda alayhi salaam ak doomam sulaymaan ca yàlla li muy wala qad aataynaa daawuda minna fadla nee na daawuda ñun yàlla ñoo ko may mbaax ñoo ko may ngëneel lum ca teg la mu wax su su weesoo yaa jibaalu awwibi maahu maahu wa tayr lam ca teg lépp liggéey la maanaam ñaq wut fàggu la ndax wa alanna lahu alxadiid la suñu boroom wax daawuda ñoo ko xamal nan lay mën a nooyale weñ muy defar ay mbubbi koŋ di defar nangam Suleymaan itam ab liggéey la ca teg ba ca mujj mu ne i'malu ala daawuda shukran yéen waa kër daawuda i'malu faggu leen am waaye nag shukran gis nga baat bii wala jumla bii moom rek matoon na sëkk waxtaan i'malu ala daawuda shukra ndax usuli yu ni dañuy wax ne siixatul amri taqtadil wujub yàlla sunu boroom fu mu jëfandikoo amr maanaam lu digal lu nekk farata la ci yow en tout cas loolu lañ ci njëkk a dégg su yàlla ne defal kon lim la wax ne defal moom day farata loolu lañ jàng ci fi'lu amr su amut beneen xar yi la sunu borom daan ne kon yéen waa kër Daawuda liggéeyi leen mën ngaa wax ne kon yéen waa kër Daawuda ñaqi leen mën ngaa wax yéen waa kër Daawuda dem leen fàggu ji waaye nag nan ngeen ko defee shukran ngir ngeen sante ko yàlla loolu ci naxu moo tudd al mafuulu li ajlihi maanaam lan moo tax mu ne da ngeen di liggéey ngir sante ko yàlla amalu gi mooy liggéey leen shukran gi mooy naka ngeen di liggéey xam nga comme que da ngeen koy sant yàlla te yàlla kenn du ko sant ci lu xaraam yàlla kenn du ko sant ci lu xaraam kon ci lu dagan lañ koy sant ci xadiis itam bari na ci lool sunu am na fu yónni saa wax ne kum manti doon ci yéen mu jëloon buumam gii dugg fee ca xurwa dem taxani am sa yu ne ko fiit yanu ko ñëw jaay ko man cee dunde ba tax du yalwaani moo gën ci moom mu dem ci nit ñi di leen laaj moo xam jox nañ ko wala jox duñ loolu kon mi ngi wax jéem a ñaq jéem a wuti loo am waxaat na feneen maa akala al taaman ahabba ila min kaddi yadi nit ki munta lekk lu gënal yàlla ñaqu ñaqu jëm wala liggéey loxoom kon loolu itam beneen la ci ak yu bare bari yoo xamante ni day wone rek maanaam faggu ni mu amee solo faggu ni mu amee solo ak lu leew di teewu sax yom saa sallam nee na su fekkoon ne tey jii saa day taxaw saa day taxaw nga yore Euh, njëmbat soo ko mënee jëmbat jëmbatal yow bul xool ba xam dana meññ nag dana màgg waaye saa ngi waaj a taxaw nga yoru njëmbat jëmbatal loolu lépp dafay wone gëdd gu liggéey amee sol kon lu lu mat a bàyyi xel ndax am na cëslaay lu wér ci lislaam waxuma lëg ne moom mooy doxal ab société yàlla ñi mu gën a fonk mooy ñan mooy ay yonentam te ay yonentam dañ daa am ay métier dañ daa am ay liggéey aadama nee nañ baykat la woon nuux ab menuisier la woon euh, idrisa ab tailleur la woon euh, seydina ibrahima dadaa jaay ay tisi euh, ku demee ne seydina ismaila ab rëbbkat la woon seydina daawuda dadaa liggéey ci xeeti mën nga ne tëgg seydina isxaqa dadaa sàmm mook yaquba ak shuayb yonente yàlla moussa sàmm na bay na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàmm na commerce na kon da gis ne métier wala liggéey yi nga xam ne booba nit ñi xamoon nañ ko te ñu ci daa amee dara yonent yi xeebi xeebuñu ko woon li ñuy wax su métier ñoom xamuñu ko sëriñ bi nag muy sëñ Tuubaa moom mooy almujaddid moom la suñu borom dogal mu war a yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu ko waxee ci maxaaliqu niran hada wa innama alayhi almuqtafa li kathrati aljahli ala annaas ixtafa wa tabiatha siratu sahaba dawil huda dafa ñëw fekk ne sunna si yonent bi mel na ne ràpp na mu ñëw nag war a yeesal tegaat nit ñi ci digg yoon wi kon mu jaddid nag munu fee indi bees day yeesal déggiinu nit ñi bañu ñu mën a non nangu digali sunu borom bi subhaanahu wa taala xam nga sëñ moom moo waxal boppam ci fu baree bari ne moom mujaddid la yenn da ko wax da ko wax mu leer nañ ne moom day yeesal diine day yeesalaatal ci nit ñi njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu algarra wa inni ahmadu dinun siwa islaamihi la yuhmadu inda alilahi wa bihi nujaddidu nadaafatuhu kulli min allagwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu waxaat feneen ubbiye bi sabil bila aydan aw alami comme que moom waxal na ko boppam kon ñun du ñu aventuré wu naan nangam waaye nag lu yonent bi sallallahu alayhi doon jàngale noonu la doon jàngale loolu nag suñu ñëw ci tomb bi ñuy waxtaane tey da ciy leer naññi day mel ne sax da ciy gën a leer ndax da ca am lu ñuy wax touche suñu baax dafay am yëfi boppam yi mu wone ci fàggulu lew moo tax mu sonn ci lool sëñ tubaa yëmut ci lool waaye fàggu lu lew sëñ tubaa da ko defoon muy jumtukaay boo xam ne ci lay yare ak di ci eggale nit ñi ci seen borom subhaanahu wa taala liggéey lawat na nag liggéey boo xamante ni nit ki maanaam aw ñaqam lay génne mu ci am coono ab yaram sëñ bi da sonn lool loolu day fees ci mag ñu njëkk ñi nga xam ne moom na sëñ bi tarbiya woon da ci fees bu baax a baax mooy mag ñooñu sëñ Euh, Ibrahima Sarr Ndiagne sëñ Massamba Diop sëñ Abdourahmane Lo sëñ Manoumbe Xabaan euh, sëñ Assane Ndiaye sëñ sëñ Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall soo gisee ca wooteb sëriñ bu njëkk ba lañ daa wax tarbiya ca jamono jooja lii da ci fës bu baax a baax léeg-léeg gëstukat yi ci yoonu murid te ngeen jéggal ma ko dañuy def njuumte lu rëy a rëy da ngay dégg ñu naan sëñ tubaa maanaam nangami mën nañu wax nangami promotion la tarbiya waaye xam nga fu ñu koy yemale 1894 wala 1893 daatal sëñ bi di dem ci géej gi ndax booba jafe-jafe bi ñu am jàpp nañu ne tarbiya mooy dugg ci àll bi di gor ak a yett ak a bay fekk loolu loolu moom euh, du tarbiya loolu aw tarbiyin la dafa am nu muy tarbiya rek waaye sëriñ bi ci biir njaareem am na ñu ngi fa tarbiya te góor ñu yettuñu teewul nag lépp ab liggéey la waaye li ma bëggoon a junj fii mooy Sëriñ Tuubaa ba mu leen di jàngal bëgg euh, làggal seeni cër ci jaamu yàlla dafa bokk ci jumtukaay yi mu jëfandikoo woon mooy di ñaq di leen ñaqloo ndax sëriñ bi li mu bëggoon mooy na jël seen waxtu bu ñu am jot ndax su ñu amee jot porox ndollu saytaane lay doon sëñ bi nag saytaane lay bañ mu am ci ñoom aw yoon moo tax muy occuper seen waxtu wépp maanaam muy jël seen waxtu wépp ñu di ko nekk ci luy am njariñ loola moo taxoon daara tarbiya yu jóg sëriñ Bachir wax na ko ci minal baqil qadim dafa wax ne yaj'alu awwala maa ya'xuduhum bihi ba'da taqaariri waajibaati diini wa mandubaatihi lahum mubaasharatu al-a'maal al-badaniya wala mubaasharatu al-a'maal al-badaniya maanaam al-a'maal al-badaniya mooy liggéey yooyu gor yett bay fetañ rabat xeet yu mel noonu loolu sëñ bi itam dafa am lu ci jublu woon yooyu yëpp xëy na du fi xaj waaye daal nooy dañ dem ba tàmm ko ba nga xam ne dootuñu am jotug yàq su ko defee koo amut jotug yàq seytaane du am jot ci yow ba di la yàq moo tax euh, loolu sëriñ bi sonnoon ci lool ci jëm leen a liggéeyloo ndax dégg ngeen misaal mu sii moomu ki ñëwoon ne ko man kat damaa am jaaxle di ko wax soxla sëñ bi ne ko soxla sa àdduna su liggéey mun tafaj man xam soxla su alaaxira su jaamu yàlla mun tafaj xam ko kon foofu day day day leer nañ waaye ci li sëñ Bachirou tudd foofu rek ci sëriñ bi ak maanaam ñaq wala liggéeyloo gim leen doon liggéeyloo mën nañ cey jàng ne liggéey bi sëñ bi doon defloo juróom-ñetti sabab doon na ko tax a jóg bu njëkk bi mooy liggéey ci boppam sharia moo ko digle liggéey sharia moo ko digle sharia lim lay wax jaamul yàlla lépp lim naan la da nga wéeru ci yàlla xamal na yàlla rek kay joxe yàlla rek kay xañ teewul sharia dalaa wax ne deel liggéey ndax sëñ bi nit ki mun ta wax ne dafa wéeru ci yàlla wala dafa doyloo yàlla ba tax mu ne damay toog lépp di sotti loolu nit ki du ko wax sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalikul jinaan waalam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan waaw sëñ Tuubaa dana waalam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan laa taku daa itlaafi xasbuka min tawakkulin an laa tara mujriya rizqika siwa rabbil wara nee na wéeru ci yàlla jotewul ak jotewul ak fàggu nee na wéeru ci yàlla mooy nga xam ne yàllaay joxe yàllaay xañ mu jeex tàkk kon bi ci njëkk mooy da xam ne liggéey yàllaa ko digle loolu moo taxoon mu jiraa soññ murid yépp te di leen ci ga euh, gis nga sëñ maam Cheikh Moussa ci marsiya bi mu marsiyaal sëñ sëñ Daam Abdourahman Lo euh, mi ngi wax naan foofee fa Mbàkke Kajoor lañ tarbiya abadan mook làmp ak saa nijaay ndaam abdourahmana ak saa ndaam saa nijaay ndaam ndumbe xabbaana la wax daal wax ne guddeeg bëccëg lañ daa daw booba kenn du nelaw jàng ak liggéey lañu daa booleeg di yalwaana di rafle tey suñu duñ am njël di xiifa kamar limboo sagar yaa di xaaraane karootaana nga xam ne lima waxoon léegi mooy sëriñ bi jël na seen waxtu wépp di leen ko defloo ci lu am solo waaye lu am solo loolu bokkoon na ci mooy liggéey bi moo tax ca marché yëpp sëñ Fallou ba itam loolu la wax ci sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou dafa wax ne bind ak liggéey ak jàng lañ daa boole bind ak liggéey jàng lañ daa boole laa jël Cheikh Fadlu mii di xoole waaw laa jël ma Cheikh Fadlu mii di xoole ñaareel bi mooy liggéey ci boppam li ma waxoon mooy dafay tax nga moom sa waxtu ndax sëriñ bi dafa bañoon nit ki amuk jot ba ëpp dama cee dégg lu xoromu euh, waaye sañ naa ko wax ndax ki ko wax damaa jege ki ko wax Modou Lo ma jaxate la tudd moo jur sama baay nee na mook sëñ Fallum sëñ Masamba Jóob Saam sëñ Tuubaa da dafa am fu mu leen beroon ñoom ak ñeneen di leen binduloo xam naa nag léeg-léeg ñuy fande te xéewal gi di leen romb nee na bis ñu ne euh, dana sax sëñ Fallou Jóob ko wax ne ko Modou Lo sëñ bi de damaa yaakaar dañoo fàtte mu ne ko fàtte wu ñu ko da nga naan dañoo bëgg a sonal ndax fii moo ñu fi teg mu ne ko waaw ñàkk gee lekk ak yooyu nag mu ne ko xam nga nañu subaa suñu jullee fajar ba noppi ñu def tasbiixa buñ def dara nañ dem kar ko ne ko dañoo bëgg nga jox ñu ci caabi yi ñuy tëj ak tijji mbaa nga boole ci ñuy dëlali nee na sëñ ba mu jullee fajar ba noppi rek fi mu jaar noonu daal di ubbi fenêtre daal ne ana ñooñu bañ ko waxee mu wax leen ne leen yéen da ngeen bokk ñi nga xam ne seeni baay dafa jiitu ci man ma noppi ñoom delloo leen fa ñu jóge woon bañu amee leen fañ leen amee ngeen ñu indi leen fii su ma sañoon la ma rawoon seen baay ma dab leen waaye kaay ma xamal leen ne nit ki kat man du ma ko digal loo amul njariñ daane loolu nag amul njariñ daan ne leen su ngeen xëyatee su ngeen amul lu ngeen def rek su ngeen noppee kaay ñëw leen fi man ma wax leen lu ngeen def nee na mu leen di jox ay matt jalambaana ne déwén ko natt sebare di ko daggal mu ko jaaroo baloo sax am na ku ñu wax genn kilifa goo xam ne am na natt bu ko fi daloon ginnaaw Sëriñ Tubaa ñu bare bare dañoo yaakaar ne li ko Sëriñ Tubaa doon def la loolu bis ñëw fekkaatu ko mu dem ñu bare bare dañ ne loolu moo ko ci dal xëy na la jërul di sori ñetteel ba mooy liggéey boobu day tax tayyeel day dañ ci doomu aadama ak rëy naw jëf ndax xam nga sëriñ bi ger mi ngoo xam ne daa digle ñépp di wuyu nga jekki-jekki yóbbu ko ca tool ya mbaa nga boole ko Cheikh Rafaal muy xëy ko gontu di dem ca teen ba di raw ay goj di jukki léeg-léeg di labat loolu loolu metti na loolu metti na loolu day dindi ci nit rëy day dindi ci moom tàyyeel day dindi ci moom naw jëf ak jikko yooyu nga xam ne sëriñ bi dafa wax ne yu nekk dañ ko war a dindi ci doomu aadama ñeenteel bi mooy nag dafa am rendement liggéey dafa am am koom lu mu la mën a mu la mën a jox loolu taxoon na ba sëñ Tuubaa waxoon na ñoom sëñ Modou Moussa ca ñaar fukk ak juróom-ñett ya la tax mu di ko laaj dana leen xam ngeen lu ma ci jublu dama bëgg lu ngeen di defati ngeen dem ceeg seen doole bopp ca bañ cee xaar kenn waaye dèjà tegoon na ndax ku la manal sañal la te yàlla nay ka la war a sañal ku la manal sañal la kon loolu mën ngaa jàpp ne mooy autonomie bi ci des it li ñu wax autosuffisance nag ca jamono jooja liggéey da koo mënoon ndax lañ daa dundee ak fañ daa dëkk yépp amoon na ci environnement bi ñu dëkk ba kuy liggéey dañ nga ko man te booba sëñ Tuubaa ña no ña jóge woon ca daara tarbiya ak ña toppoon ci sëriñ bi ma lépp lu ñu man ci métier dañ ko man ndax booba danañ mën a takk ay néeg danañ mën a daaj gongu danañ mën a euh, bay danañ ko mën daal nga xam ne suñ jógee ñoom duñ doon ay chômeur sang si ngeen jéggal ma ko ngeen déggal ma ko soo gisee jafe-jafe bi fii ne ci dongay tarbiya yi ñenn ñi du ñëpp nag foofu itam sañ naa cee wax ndax dama cee jaar dongay tarbiya yu bare bare jafe-jafe bii la ñu dañ jóge ci daal di am ñaar fukki at juróom wala fanweeri at dañu am métier xam nga nañu man bay ak lan daaj gong te kenn tëddut ci gong daanaka su ko defee nooy def ñëw war a commencé waat war a commencé waat jàng métier maa nga dem Ndakaaru jaay kafe maa nga sëriñ ci ji di mën kata la asalaamaaleykum loolu itam jafe-jafe la kon juróom-benneel bi mooy dim loolu itam dala daa dimbali nga mën a joxe ci yoonu yàlla ndax dangay am di ci joxe ndax dangay am xaalis maanaam soo liggéeyee am lu ca jóge nga mën cee joxe ci yoonu yàlla waxuma sax addiya moom ndax addiya moom ñun murit dañoo jàpp ne farata la juróom-ñaareel ba itam ci fàggulu la muy dagane la la muy jural mooy ci la doon réaliser ci lañuy doon sottal sembu yu mag yi nga xam ne moom la yoon wi ak dëkk bi laa joon ci jumaay sëñ Tuubaa ci njaareem ak ci raay bi jële ko Touba indi ko jële ko njaareem indi ko Touba jumaay Touba ji ci lañ ko defee ba ci nee ñu euh, yeneen yi ci des yëpp ay Matlabul Fawzayni nekk ngir wax yu mujj yi nga xam ne ci la amee nga xam ne yaakaaruñ ci keneen juróom-ñetteel bi jëmmi ni ñu leen daa taxawoo ak di leen toq ci liggéey maanaam aar la woon boole ci soo gisee lan moo taxoon sëriñ Touba ay këram moo fi gënoon a rafet gis nga li ñuy wax aar dëgg la architecture bi muy tabaxe bi muy bi mu sampee ay ay néegam ñu ci wax néegi juróom-ñaari koñ ak juróom-ñetti koñ néegi ràng ak yu mel noonu nga xam ne Sénégal seenum xel ak seenum ñaw ak seen technologie fa mu gënoon a egg fa mu gënoon a sori mën ngaa wax ne yoonu murit moo ko fa yóbbu woon loolu itam euh, lu jar di bàyyi xel la teewul nag am nañ ci sax ñoo xam ne ci biir kër njaareem gi ay liggéeykat lañu wala amoon nañu métier daañu wax ne ku demee ne sëñ sëñ Modou sëñ Modou Mamoun mënoon naa aw ku demee ne sëñ Mbacke Diouf mënoon na menuisier ku demee ne sëñ Cheikh Fatou Tàkko ak ñeneen ak ñeneen ñu baree bari bàyyi mataar sëñ mataar Diop cump man sax maam la ci man wala mat na ma ko bokk nee na bis sëñ Mbàkke Diouf da ko woo mu ñëw njaareem nee na bi mu ñëwee mu ne ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko loo dugg mu ne ko ci saxaar gi laa dugg mu ne ko ana sa daal yi mu ne ko mi ngi nii mu ne ko nu tudd mu ne ko nu pied tudd nee na munu ko daal di ree nee na booba fekk naa fa keroog sëñ Fallou Sarr sëñ Bay Fallou ak sëñ Modou loo ma jaxate sëñ Mbacke Diouf dana leen kaay leen ma séeré loo leen sëñ Tuubaa ka damaa woo ba ñëw mu ne ma dafa am nu ma sama kër gii te mënuma ko te yaa ma ko fi manal loolu moo taxoon ma bëgg na nga xool ni nga koy defee te di ko sellal nga xam ne maanaam nit ki la mu amoon ci métier sëñ bi da koo fonkoon lool sëñ ma paata mbay mi rek nee na ñaw sëñ nee ñu ñaw sëñ Tuubaa ko juraa encouragé léegi nag kon sëñ Abdou Khadir yaakaar naa li nga ma waxoon ci wax léegi mu jege kon li ñu ñëw mooy ne wax ne suñu wax faggu wala liggéey mëni su koo def liste mëni su koo liste waaye lu koy tënk mooy la ngay def na lew yoon wa ngay jaar na lew da ngay bayak da ngay ñëw ak da ngay da ngay eh, yor peel loo mën di def na lew soo dee liggéey ci informatique itam na lew soo dee liggéey ci informatique na lew ba ci sax li gaay naan nangam ji ngelaw kese la li ñuy wax ngelaw ñaare luñ ci jublu mooy lu jëm ci liggéey yi nga xam ne wàllum euh, communication la ak internet ñu baree bari am na trafic yu ñu ci def jàppale dara daal ndax waaye lépp yi tam ab liggéey lépp loo xam ne doomu aadama mi ngi ci def ak coonoom cim xelam mbaa ci aw yaramam lu am solo loolu lépp kon mënees mu ne su ko junj xanaa li ci am solo mooy lépp luy dugg ni ko sëriñ bi waxoon dangay ngay xool lan la ci sharia wax lan la ci sharia wax soo noppee itam na koy wute nga xam ne yàllaa la koy may nga wute ko ci ngor nga wute ko ci ngor gis naa ci waa joo xam ne la ko jottale woon ak ka muy liggéey ci ay jàpp ak julli la ñu ne ko fii daal amul jàpp ak yu mel noonu ba mu bàyyee mbokkam wala boog ñëpp ci ay mbokkam ñëpp dañ na ko yow moom erreur nga def mën ngaa nax moom rek affaire yi sax garaaw soo wàccee julli wax ne kon jamono ji foofu la kon ci mujj gi mën nañoo wax ginnaaw bi ñu waxee juróom-ñett yi nga xam ne moo taxoon sëriñ bi digle euh, fàggulu leew ñu wax ne nag am na jeexital ju rek jeexital jooju nag waxuma la ci li ma waxoon sànq mooy li ngay mën a ame loo dunde waxuma la li ngay mën a sukkandikoo ci sa bopp waxuma la li ngay mën a sottalee say soxlay bopp waaye jëmmi liggéey ak ñaq ak faggu day mbir moo xamante ni mën nga ne day màndargaal sunu yoon wi soo gisee ci ndakaaru bari na lu ñuy wax ci bawol bawol fekk du bawol bawol ci na lu wax ci bawol bawol du bawol xam nga sëñ Moussa ga ca marché bi njëkk a defee sëñ Modou Moussa astafurlah sëñ Tuubaa laa bëgg wax ba mu koy wax yaa tax maanaam ni mu defaree xeet yi nekk Sénégal lu mu wax bawol bawol ba sàcc pël ba wax la ca topp waaye daal ba muy wax bawol bawol dana ko yaa tax mu ba sàcc dama bëgg wax ne li ñu wax ci naan bawol bawol dafa nangoo am jom xeebut ab liggéey dafa nangoo liggéey du yàq loolu du du mën naa bañ a doon melo bawol bawol waaye yarub sëriñ Tuubaa loolu nag lu mat lu mat a bàyyi xel la ci benn ni nga xamante ni lañ koy bañ a xeebe ba noppi niñ koy jaare ci yoon su noppee bañ koo ñu bañ koo ñu bañ koo yàq euh, ci loolu sëriñ bi damay bañ a jël lu ëpp foofu laa yam su ko defee suñu sang si suñu ñëwee danañu eggale li nga xamante ni moo ci des xanaa nag li may mujje mooy lu sëñ Maxtaar Diop Cumpo waxoon ne sëñ Modou Moustapha moo ko waxoon su ma juum sax dana woon bokk ne li leen ci Cheikh Moustapha mujj a wax dana leen ñuy digal ñi ñu àndal ñuy liggéey te jaamu yàlla daane képp ku ci nangu na ngeen teel a tàqalikoo ak moom daana ko ndax su ngeen tàqaliku kóot ak moom day bisa ngi ñëw boo xam ne da ngeen a siiw tàqalikook ñoom mu nit mu tëtic kon foofu laay mujje ni ñu boole jaamu yàlla ak liggéey te liggéey bi nag ni ko yoonu murit xamee mooy fàggulu leew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ci euh, taxawaay yi bu solo yi nag doon koo xam ne euh, waaye innové wut xëy na dafa réformé diine yi ci loolu nag mooy rek maanaam lépp loo xam ne lu teguwutoon fu mu war a tegu la mu yóbbu ko fu mu war a tegu defaraat ko yeesalaat ko ni mu waxee ci mbay la yëpp xëy na liggéey bi ci loolu la dugg bi sallallahu alayhi wasallam soññee na ci la yeesalaat ci taalibe yi xamal leen ne liggéey la ci ëpp solo rek mooy na lew kon mel na ne wa talabul xalaali fardun yattami li kulli muslimin bi xeyri wahami kon loolu rek mooy da ca yitteel mooy na lew rek ginnaaw bi mu def ci ay jéego yu am solo yoo xam ne ni mu ko waxee ci génération yu bari yoo xam ne sëriñ bi yar na leen ci indi na it tomb bu am solo ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tarbiya ni nga xam ne noonu lañ leen di tarbiya la am solo mooy nañ fexe ba ñu am qualification ci métier moo xam ne buñ noppee ci tarbiya bi danañ mën a am ci luñ jàpp ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bu mag bi daan defee te mu indi ci ay exemple yu bari te lu jiitu loolu mu indi ci exemple ci ay yonent yu fi amoon yu fi jaaroon ak gaa baax kenn ku ci nekk am na ci loo daal yëngu loo xam ne ci ka daan fàggoo lu lew kon daanaka mënees na ko tënkee rek rawatina sabab bi nga xam ne moo taxoon bokk na ci li taxoon boog sëriñ bi daal soññu taalibe yi ci ñu góorgóorlu di fàggu lu lew indi na ci juróom-ñetti tomb yoo xam ne xëy na buñ dégluwaatee buñ nafaraatee euh, njàngat bi danañ euh, conférence bi danañ ko kon mën nañoo jàll ci li ci topp rek ngir tënk ak waxtu wi nga xam ne xëy na contribution waroon na am jàpp naa ne euh, leer na leer boo xam ne daanaka mën nañoo jàll rek ci li ci topp te mooy jox kàddu yi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu tàmbalee ko ci gan ñu tedd ñi nga xam ne ñoo jógee kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe Mbàkke su ko defee am na tur ma jox ñoo xam ne ñoo war a wax ci seeni tur ci turu kilifa ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ak sëñ Manumbe ci jiitul ñi nga xam ne mooy xalifa sëñ Manumbe su ko defee sëriñ Ousmane Mbacke moo war a wax ci turu waa kër sëriñ Manoumbe lu jiitu sëriñ Ousmane di wax nag dañuy sàkku ci ko ñuy wax sëriñ a Niang mu ñëw teew fii am na kàddu yu mu war a jàllale moom it bokk ci délégation bi